إن الذي من الأجلاء عصور خابني قبل وفي فسور دلني الله على الله بلا تقرري وأمري تقبلا خابت قلاتي مع الوصالي من صمد عصب لا كسادي وخاني الباخي به سكورا تجارتي لضي إلى انتبورا لم ينحني ما باعني الله فضلا ولا إله إلا الله يقود لي بالانتهاء صمني من كان لي ولي صافى صمني دعوة رب باللسان العربي بلا نهاية وتابت قربي عصى علي الإسلام إن خربتي لدى الجزائر منير تربتي نصر علي نار اللسان والكتاب أسمان خدمتي لدى أهل الكتاب تنيل ما صبت للمصطفى أخنا يميني عن أصل ومدفعي هداني الله وصصع اللعين إلى سواهم يا أبص المعين يا رحمن يا رحيم بقي في دجي دي أي خريط أكي ولري ak dëkkandoo noo ngi leen di nuyu nuyub lislaam bi sunu boroom tànnal jullit ñi muy nuyoo bu làmb lépp lu ab jullit di yittewoo ci boroomam njaal been gi jàmm la digg bi yërmande mujj gi di yiw ñu tëbbee ko ci sunu xol boole ci ab siyaar boo xam ne dañuy ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu tollale ko seeni daraja noo ngi leen di ñaanal tey sàkku seen ñaan ñaan gu ànd ak yaakaar nuyoo bi ak siyaar bi ak ñaan gi ñu di ci jiital kilifa yoon wi cheikh mouhamadul muntaxa mi toog a jataayoo mu rasul noo ngi ñaan sunu boroom mu def mu yàgg koo toogee te mu dolli ko ak wér te wéralal ko ñi ko wër noo ngi siyaare nal kilifa gi te moo di yàgg fi ak yàggale ci barkeb Sëriñ Fallu noo ngi nuyu bu baax soxna maam Bousso bintu Cheikh Mouhamadoul Fadal ak njabootam gi mu dendal gépp di am mbégte lool ci seenu teewaay di ko dalale sunu xel di ñaan yàlla mu yàgg noonu la ñu nuyoo jëwriñi kër gi ñu tàbbi alxaaji Falilu Géey moom Baay Moor ak ay rakkam ak bokki taalibe yi fi teew yépp di jégalu kàddu gi di xam ne rekk ne yéene juy gàttandu yaakaar moom laa fi toogee waaye du xam-xam du man-man bu ma sañoon bi ma déggee kàddu Cheikh Ibrahima Fall Lamp dañ koy jébbal lépp rek toog diglu ko ndax boroom xam-xam la te ci la bokk kon nag moom bu yëkkati woon kàddoom rek mu doy sëkk waaye nag lii Mamadou Guissé wax Baye Mor ñëpp dañ koo bokk ku ne am ci cër te ñi fi nekk seq ko itam loola lañu am yéene wéyal ko kenn ku nekk cër ba nga ci am ñu jox la ko te wolof na fekkee muccut xaj na kon loolu moo tax mu dox ba yegsi ci man waaye bu ma teewoon déglu Ibra Fall Lamp rek mu doy sëkk noo ngi koy siyaare noo ngi koy nuyu noo koy ñaanal yàlla àggaleel ko yéenam ci lislaam jàmbaar la wax dëgg yàlla ñu baree ni jariñu ci ay waxam te lu baax rek ko tax a jóg lu baax rek la bëgg waaye nag loolu mooy ndonoom yàlla na ko yàlla sakkanalal ci barke Serigne Touba bés bi nag day bés boo xam ne mbégte mi ma ci am rëy na lool. ndax yi ci daje bésu fàttaliku la bésu ñaan la bésu cant la bésu jokk bokk la yooyu yëpp nag bés bu mu daje bu nu ko xamee danañ ci mën a jariñu saayir danañ ci mën a jariñu baatin xam ngeen ne fàttaliku sunu borom subhanahu wa taala lu ko ñor la moom mi nga xam ne moo sàkk ñëpp kenn waru koo fàtte waaye yërmandeem akuk laabiram ak ñiiwante doomu aadama tax mu wax ne bu ngeen ma fàttalikoo ma fàttaliku leen wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko doo kenn ku dul ab fàttaleekat rek ba noppi itam xamle ne fàttali dana jariñ ab jullit waaye nag mu leeral ne ki bàyyi xel yàlla moo mën a fàttaliku faskuroon yi askurkum bu ngeen ma fàttalikoo ma fàttaliku leen ma fàttaliku leen innama anta musakir doo kenn ku dul ab fàttalikat rek te fàttali dana jariñ ab jullit waaye nag ki bàyyi xel yàlla saya sakkaru man yaxsa kooku mooy fàttaliku kon fàttaliku ci bés bii doon na loo xam ne lu ci am cër la bu dee ñaan sunu borom subhanahu wa dafa digle ñaan bëgg ku koy def yegg na ci wa aleykum yegg na ci ku ko dul ñaan sax dalay mere te moo ne bu ngeen ma ñaanee ma may leen bu ngeen ma wooyee ma wuyu leen Sëriñ Tuubaa sunu yaakaar radiallahu anhu nee na ñaan dana jariñ ko fi bàyyi ko dana jariñ kii dund waaye dana ko faralool ab yool isi duha yanfahu maytan fil xubur wa yanfahu lxayya wa yoojubul ujóor kon yooyu yëpp day yoo xam ne daje nañu ci bés bi nu war cee sant suñu boroom bu dee jokku bokk ak bokk ay bokk koy séq nit day am ndey am baay ndey ak baay am ñu leen séq moo tax ñuy wax baay di wax maam di wax maamaat loolu nag liñ ko liñ ciy déggee moo di xam ne aw askan day law law googu muy law mooy waral mooy dem ba jaxase bokk yi kii day neyu fii bàyyu fee kii kii bàyyu fee neyu fii lépp del siwaat ci ak bokk muy lu mat a bàyyi xel bokk lawinu askan mooy dem ba tasaare bokk yi ci réew mi fenn fu nekk mbokk ne fa bu boobaa nag la ca yàlla santaane mooy rafetal ak jokk ak toppatoo Baye Mor mi tax nu teew fii tey loolu moom joxe na ci firnde ndax li yàlla defan ci moom ci xeeti bëgg mbokk ak toppatoo mbokk ak fonk kóllëre yaakaar naa ne ku ko ci roy danga ko defal lu ko neex loolu ab cërëma woon yàlla nag sunu boroom bi mu sakkee doom bi mu sàkkee doom aadama tëral ak bokk bëgg a wàcce ak bokk wékk ko ca aras ak bokk dafa jooy mu ne ko looy jooy mu ne ko damaa xam ne fa nga may yóbbu bu ma demee dañ may dog te man bëgguma ku ma dog mu ne ko sa xel na dal boo demee ku la jokk danaa leen boole jokk ku la dog ma dog ko wal iyaasu billaahi ak bokk door nangoo wàcc kon ak bokk lu rëy la moo taxoon Seydina Omar ibnul Xataab radiyallahu anhu wax ne xam lu leen ci seenu askan lu ngeen mën a jokke seenu bokk ta'allamu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arhamakum loolu la Seydina Omar wax kon ak bokk dafay lu am solo te def naa na jotaay bii nag ay bokk rekk a ko seq sunu borom subhanahu wa taala bu ko neexoon mu sàkkandoo doomu aadama yëpp bañ leen a wutal ay baay ak ndey te koy itam dañuy xam ne sañ na ko te woon nanu ne bu fekkee ne def defe na ko noonu mu ko defee kon dañuy xam ne ñàkkut lum ci jublu te woon nanu ne mën na koy def itam ndax malaaka yeenu gën a bari fop te daa xëy xëy def leen benn jóor rek. amuñu ay baay amuñu ay maam kon bu sàkkee doomu aadama wutal ko ndey wutal ko baay wutal ko maam ak ñu mu koy bokkal kon am na lu mu ca bëgg bu ko neexan mu sàkk doomu aadama rek mu jaar ci ndey jaar ci baay te te du ko ca sant dara ci ay waajuram ak ñañ ko bokkal te loolu it woon nañu ne mën na ko ndax bàyyi ma yi dañuy ami waajur di am ñu ñu bokkali waajur waaye sunu borom togg leen ci ñoom dara kon nag bu yàlla sàkkee doomu aadama wutal ko ay jaaruwaay ak ñu koy bokkal war na noo xam ne am na lum ca nar am na lum ca jublu. sëñ Cheikh da koo jox rendez ba waxtu wa jotee nee na mu ñëw taxaw ci bunt bi moom sëñ Cheikh bu waxtu wi jotee rek bu la joxee rendez-vous ba waxtu wi jotee rek mooy ubbi bunt bi bu la gisee baax na bu la gisu dellu ci ay yitteem nee na ndax la ne kàcc ci bunt bi yam ci man saar ñëw nga mu ne ko waaw nee na ñu dugg ci biir. mu mu toog loo saar ci fauteuil bi toog ci bangu dénk bi moom ne ko ah xanaa waxtaan wi dañ koy tënk rek ndax xataayu jamono jamono ngi ñëw joo xam ne na ngeen wattu bu baax a baax a baax na ngeen ñaan bu baax a baax a baax na ngeen faju xanaa loolu mooy jamono ji nu nekk wattandiku baax na de waaye ñaan baax na de rawatina nag faju fii jamono toll kenn wératul léegi kon ñoom ay jëmmi lañ yoo xam ne yàlla di leen di wan lu ñëwagut ba noppi nag jox leen xol bu laabiir buñ ko mën a leerale nit ñi sunu yaakaar jiinu nekk ci moom muy ci Amadul Xadim yu mel noonu jaar na ci ñu nekk leen ba tàyyi ba tàyyi waxoon na si Masamba ne ko yéen a ngi jëm ci jamono joo xam ne juróom a cay tax a mucc jekki ak noppi ak nangoo liggéey ak sax ci jaamu yàlla ak doylu lii la waxoon ma sàmba xanaa loolu mooy jamono ji nu nekk yàlla nañ ci yàlla dimbali kon yooyu yëpp bu dajee ci jataay bi nga xam ne moo tax nu teew fi tey ci la ñuy tànn menn mag moo xam ne kenn la woon ci mag ñi di doom ci mag ñi ba noppi ànd ak mag ñi liggéeyal sëriñ bi ba am ngërëm maanaam doomi ngërëm ju am ngërëm sunu maam yooyu nga xam ne ba ñuy ànd ak sëriñ bi njariñul saayir feeñagul nga xam ne mën nañ cee teg bët ñu ànd ak moom ci pas-pas ak gëm xay bu wutuñu woon dara lu dul yàlla di ay gor yu doon sàmm seen diine dëgmal seen boroom jaayanteeg sëriñ bi jaayante gu mat sëkk jaayante gu dara desul te booba sëriñ bi wéet lool ca la mu nekk mag ñu baax ñooñu futtiku woon ak moom di ko jàppale ba yoon mi agsi fii mu agsi tey ma yaakaar ne ñooñu waree su leen a fàtte waxtaane alxaaji Mor Gueye day dellu ci waxtaane sëriñ Fadilou Mbakke daraam génnul sëriñ Fadilou léppam sëriñ Falilu Mbàkke la waxtaane alxaaji Mor Gueye day dellu ci waxtaane daaray tarbiya ndax moom da doon doomi daara ci kër ndey ak ci kër baay way juróom wu góor dafa bokkoon ci jëwriñi daaray sëriñ Fallu daara yi sëriñ Fallu jëkk a samp ca Ndindi mu tànn ca juróom juróom fukki nit ak juróom ñett ñu nekk ay jëwriñ ànd ak moom di liggéeyal yàlla juróom fukki yooyee ak juróom ñett ma wax ne dana la wax ña ànd nag sëñ Fallou dix-neuf treize ca ndindi gaayu kiilo juróom fukk juróom ñett ci jawriñ la boole woon séddale leen këlli njariñ ñoo jëkk a nekk jëwriñam ndax booba sëñ Fallou Mbakke sañtagul sax mbooba ñu àndandoo ci pas-pas ak seen jom ja di ay morit yu bàyyi xel jëmmam ja sëriñ Masaar Masant Saar seen jëwriñ bindal na leen te bind nag am na njariñ jëwriñ ju mag ja moo ne woon Masaar Saar Masaar Aram bokkiwul ak Masaar Xaar limal ma sey faati te lim moor sànqe ndaw ñu sawar yu àndandoo di dàqe ma sàmba jóob ñu naa ko sàmba lawbe bu doon ne tey doo ko dégg jawbe madu faa gi muhammadooy turam wa jawriñ la woon ca tool ya bey sasam wa bul fàtte mbër mu mag ma njaay moor faama nga teg ca aminte njaay rakka ma limal biraan masant sant biey sëriñ ñang moor njaay mbawoor nga teg ca bàyyi galay ñang limal omar ma sant ak ma sayar ma sàmb mag ñu baax ñu am yar cheikh cheikh bay na njaay ak cheikh ma xumba naam siis omar soxnaak jikkoom ju réy ji ñoo moor faati loo aali loo man ak Cheikh Omar Masant Diop ak Paate Dieng Omar Cubbëg Birane Silaaki Ibra Bey Mamadou Diop moom Bobareel Insa Bey Ibrahima Diagne Omar Xujaag Njéeme Buso murid yu baax ya ñoo yoroon jikkoy puso Mamadou Lo Sërif Ba ak Abdoulaye Guèye fuñ mos a jaar mbooloo ma wax ne askey ateeg Aliyu Njaay am nañ xorom bul fàtte maam Mouhamadul Muxtaar Njaay Ismaïla Ndiaye mbokkam ma Moustapha Ndiaye cey boo xaman murit bu mag ba maam Ndiaye fam doxoon ak sëriñ bi ma mënta gàccaay cey boo xaman murit bu mag ba maam Ndiaye fam doxoon ak sëriñ bi mënta gàccaay mbaa fàtte woo moor ndumbe ak sëñ moor diir ñoo yaari moor ya di rëbb mën nañoo diir Mamadou Lo ma dëkk ak njagandaak Jibril Lo yu yiw yu ma fari ndumbeeg ma demba sekk ñoom ñaar ànd ak nañoo aadama xumba njàccaar njaga ajjumaag Mamadou Lo Mor bu sa ñoo ñii la sëñ defar ca yile gaay alaaji baayam ci ñii la àndoon jëwriñ la woon ca bobareel ju nandoon njàmbaare gaag murita gaag jikkoom ja taxan na Cheikh Fallou joxoon ko ndaw ña muy mag mu yiw mu mën a yar mu xàmmee ci yërmandeem ju yàlla leen daal sàmmee ñu jox ko maam soxna aram sekk njuga jigéen ju yiw ju yaatalan njaboot ga mu am ci sëñ Fallou Guèye ak Baye Mor na Seynabou géy ak càmmeñam Sayar Guèye seen doomi Baye Abdourahmane Madior Guèye Abdou Anta Gumba Guèye neex naa woy Kelle Guèye ne moom Kelle Guèye la feeña moom nee nañ ma 1927 mooy atam kooku mooy Baye Mor Gueye kon moom bu nee doomi daara la looloo ko waral ñam àndalan nekk ñoom ci kër sëriñ Fali ci tool sëriñ Fali lu Mbakke sëriñ Fali def leen alali sëriñ Touba alali sëriñ Touba la leen daan wooye naa leen murit du alali baadoolo te ñoom ay murit lañu ñu woon kon ñoom alali sëriñ Touba la woon ke leen ñeenteel nag tudd sëriñ Mouhamadou Fa Gueye ni ma ko waxee mooy waajuru alaaji Mor Gueye kon alaaji Mor Gueye doomi daara la man nañ na it sëtub daara la ndax bàyye Mouhamadou Fa Gueye doomi daara la ndax moom it waajuram bu góor moo daa yaral sëriñ bi ay gëléemam ba ñu ko sëñ Mor Gueye gëléem kon bu ñu ko tuddee sëriñ Mor Gueye Gëléem kon noo bëgg a waxtaane daara ak doomi daara daara nag misaalam mooy quartier ci saayir quartier dañu fay defar nit waaye nag am na fu mu wuuteeg daara ni ñuy defare am naa xarit boo xam ne Cheikh Amar ci daar ci quartier la yaroo nee na ma Baye Omar ma ne ko ah mu ne ma quartier l'islam rek a fa amul waaye lu daara yi def ci nit te du l'islam quartier dana ko def ci nit kon am nañu wuute ndax daara ak defaram defaru saayir ak baatin lay boole bokkut ak quartier ndax day boole defar jëmm defar xel defar xol defar ruu te defaru yooyu nag mooy tax nit mën a te nit ku mat moom la diine soxla moom la jamono soxla nit ku mat foo ko fekk ku daara nopp ci moom lay doon mën naa yorum réew ndax lan dana am jom dana am ngor dana am pas-pas dana am yitte dana doylu dana laabir dana xàmmee dana nangoo liggéey te du yàq daara rek a mën defar nit ku am sago lay doon daara nit ku am sago lay defar sëriñ Bay Jaxate daa waxoon ne sëriñ Tuubaa moo mat te def lu ko mat moo yéeme def lu ñu naw moo tàbbi péeyi boroomam génn may ku ne ndam ndam loole mu doon maye mag ñi nampe ci ñoom ñëpp ndam loolu la ñu am kenn ku manqué amu ca ñëpp mat ma ne nag yow mi xam sax manki bu ñuy waxtaanee ñit ku mat fi yow war ngaa dal war ngaa teey war ngaa teewlu ya ko tax a mat boo ko dee déglu te di ko jàpp bu yàggee leen nga mat ndax lu ñu sotti lu ne bu xottikuwul bëndul lee mu fees te ab jullit xolam mooy ndabam sëñ Moustapha Fali lu mos na ko wax fii ci penc mi xol yi nee na du ma du ma yetal kenn ndab waaye ku indi sa ndab ma duyal ko xol yi te boobu alaaji Mor mii moo doon jottali wax ja kon ab jullit xol mooy ndabam te xol nag xeeti bàkkaar yi yenn yi da ciy def ay taq-taq kon xol dana dana dana tilim dana ràgg lan moo ko mën a fóot wala lu ko mën a faj yàlla nee na juy dëgg bu ko xol yàggee dégg rek bu tiliman dana set bu ràggan dana wér te loolu nag lu ma tax bàyyi xel la ndax mën nañ koo amee ci jotaay yu demee nii alaaji Mor Gueye loolu la yàlla dogal ci moom ba mu feeñee ca Kelle Gueye 1927 muy at mu rëy defe naa ne sëñ Ibrahima Fall Lamp xam na li ma wax moom at ma rëy na lool 1927 mu feeñ ci jamono nekk foofa ca Kelle Gueye magam ju baax ca sëñ Fallou Gueye waaye juróom yëkkati ko indi jox ko sëñ Fallou mu ñeewante ko lool ne ko delloo ko ba ëllëg ci déwén si mu indiwaat ko indiwaat ko suñu fal mu ne ko tuuti na ba tey de waaye bàyyi ko fi dal ko jox soxna Awa Bousso ñu jox ko soxna Awa Bousso mu nekk ak moom yor ko alaaji Mor nekk ak way juram di wéy ci ndigalam ba yàlla dogal mu am xelam na ci dem liggéeyi 1946 wala lu ko jege la bàyyi koo kéel dem soowu jant mbuur sax la jëkk a dem lañ wax ne mbuur la jëkk a dem di fa yaxantu ba yàlla dogal mu dem ndakaaru loolu jiitu na kon 1946 tournée bi sëñ Fallou jëkk a tournée ca ndakaaru ba mu demee foofee mu daaloon ci cëri diis la ko waay juru sëñ alaaji Mor fekk nu yoog moom mu ne ko anam anam moom mu ne ko moom sax de mi ngi mi ngi fi mi mi ngi ndakaaru fan yii mu ne ko bu subaa nga andil ma ko ak i bagaasam soxna sa tegu ca baat dafa dem ànd ak alaaji Mor def la sëñ Fallou wax ñëw andil ko ko sëñ fal daal di woo sëñ Moudou Mbaye Tariyaax yëkkati loxoom yëkkati loxo Baye Mor Gueye teg ca ne ko gone gii àndal ak moom dem njaareem ma fekk leen fa. ba sëñ Fallou jógee ci tournée ba ñoom njaareem la ànd ak ñoom ñëw Touba ñu yëkkati Baye Mor yóbbu ki ko soxna Asu Cerno am na fa ab diir ñu soog ko faa jëlee yóbbu ko kër Maam Mbay Sàll te maam Mbay Sall mooy mbokkum ndeyam foofu am na fa diir maam Mbay Sall door ko yëkkati nag yóbbu ko ci daara ji mu nekk ñànk di liggéey kon Alaaji Mor la mu donn ak la mu nàmp ak li mu fàggu lan la ko jural ngërëmal sëñ Fallu te loolu rek la ñëpp doon wut maa ngi jégalu de damaa bañ a guddal ndax ginnaaw sama sëriñ a ngi fii te dafa war a jël kàddu kon li sabab bés bii rek nu dellusi ci te xam ne moom <clears throat> yéenem jëpp mooy fay naar bi xoromam xam ngeen ne wax naa ci njëlbéen gi ak cant ak ni fa mu toll yàlla ak la ca yàlla digle ndax cant li ci yàlla digle yàlla rek a ko man yàlla dong ma am lu dul jeex te ki am lu dul jeex moo mën a dollee mu ne bu ngeen ma santee ma dolli leen la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la sadid wal iyaasu billahi kon dëgërëb cant boobu te cant nag baatub jaajëf gàtt na waaye fa mu jógee dara desu fa fa mu jëm dara manquetu fa te rawatina jërëjëf yi sëñ Fallou Alaaji nag yëg-yëg bi mu am bi ko sëñ Fallou jox dëkk bi ak fa mu jaar ba ba Baye ne ko boo ma ci dimbalee ne ko ndax dëkk bi yett dafee nekk yoo xam ne boo ma ci jàppalee dinaa ko nangu njabootu sëñ Tuubaa gi ak bokki sëñ Tuubaa gi ak taalibey sëñ Tuubaa yi dongoy sëñ Tuubaa yi boo ma ci dimbalee danaa ko man sëñ Fallu ne ko danaa la dimbali loola tombe woon nag fukki fan ak juróom-ñett ci baraxlu muy tey jii yàlla defal ko tawfiix ndimbal la ko sëñ Fallou waxoon moom la yore dëkk bi ànd koog ñamu doyloo seen xel ak xelum boppam dëgg man ndigaleel sëñ Fallou nekk ca loola ba diir bi mu ko yor ñi ko joxoon dëkk bi ak maam Ousmane Bousso ma ko tànnoon kenn amu ci kersa sëñ Fallou jéppiwu ko sëñ bu sa merewu ko te ba ñuy laaj ku mën a yor dëkk bi sëñ Ousmane Bousso moo ko nattu xam ne mën na koo yor mu wax ko sañ Fallou yett ya sëñ Ousmane Bousso seere woon nag loole daa war doon bind boo xam ne ñëpp dañ ko war di jàng ñëpp dañ ko war di jàng nee na ko gone gi ci sama kër day xam naa ne ku ko jox dëkk bi dana ko mën a yor ndax ku maandu la ku jubla la ku doylu la xoolal ñetti baat yooyu ku maandu la musuma koo séen mukk ca keesu jigéen ña ku jub la lii nga ma jox ma di ko dénk saa yu ma koy delloo dana ko réglé noo xam ne dana ma jaaxal ku doylu la mu saytu yàq yàkk añ fii ba woo ko mu ne boo woo rek mu ne baal ma dem ci sama laax ba kon yett yooyu suñu Ousmane Bousso seere woon ci moom taxan sëñ Fallou wóolu ko jox ko dëkk bi loolee tax na sagal na sëñ Fallou sagal na sëñ Ousmane Bousso waaye siggil na sëñ Fallou loolu nag mooy yi nga xam ne ndono la lu fi bàyyi loo xam ne war nañ caa góorgóorlu bu baax te noonu mu àndoon nag sëñ Fallou nag ni la àndoon nag sëñ Moustapha Falilou sëñ Moustapha Fall doy loo ko lool da koo waxoon ne ko damaa bëgg nu ànd liggéeyal nu ànd liggéeyal sëñ Fallou def ko ni boppam def ko nawle ànd ak moom ci lépp te loolu am na firnde ndax la tax sëñ Fallou yëkkati soxna Ami Cheikh jox ko ko ak nawlonte la loole nag kon mooy li nga xam ne mooy wane ne alaaj Hadj Mor Gueye fa ko suñu Fallu tegoon ma nga fa wan mosu faa jóg yàlla nañ ko yàlla fayal may sàkku ñaan nag jagleel ko soxna Ami Cheikh Mbacké bintu mu Moudoul Fadal fu ma nekk ak fu ma nekkul jamono ju maa ngi koy ñaanal yàlla dolli ay leer ci moom ndax moom wax dëgg yàlla mënuma ko fàtte na ma defan te sëñ Fallou rek tax loolu bàyyi galasum sëñ Abdou Fatah di wax ne man damaa sëñ faloo soxnaa mi Cheikh looloo ko daloon dafa sëñ faloo ba loolaan ci sëñ Fallou rek danga nga koy yëg ci moom yéeneem yéeneem ci man maa ngi ñaan yàlla man loo ma ko man ba ma defal ko ko addiya bi woyu sëñ Fallou bi yëkkati ko daf maa woolu ma ñëw kër baa Cheikh Coro daf maa woo ma ñëw kër Baye Cheikh Coro bëgg a dem ca moom mu ne ma toogal ma ñëw fekk ma fi ma toog yëkkati fukki meetar yi mbase ak ñaar ak ñeenti junni ne ma ñaw ko sol ko bu ma aman caabi oto dinaa la ko jox jooju yéen kenn amul luñ toll te nam ko waxee man leer na ma a dëgg la ci moom loolu nag duma ko fàtte mukk yal na ko yàlla dooli leer fa mu nekk njaboot gi fi bàyyi yalla na ci yàlla teg loxo defal leen lu kowe seen njort ci barkeb sëñ Touba sëñ Fallou sama xol sedd na sant naa bu baax a baax a baax sama maam ma mbooloo yépp a mat a bàyyi xel mi la jublu ak mi la dëddu lu mbooloo ànd def la ko dañ ko waxtaane wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu